sëriñ Saliou Mbacké mi ngi gane jamono ñaar fukki fan ñaar ci weeru septembre atum 1915 ci Diourbel mooy juróomeelu xalif général des mourides wuy juróom di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ak soxna Fati Diakhaté bokk na ci kilifa diine yi ñu gën a ràññee ci Sénégal ak àdduna wërngal képp moom sëriñ Saliou Mbacké doonoon acteur économique mbay doonoon lumu fonkoon lool ñu xamoon ko ci tool yi rawatina xelkom foofee mu fa daan bay dugub gerte mboq ak yi ni mel moom Serigne Saliou Mbacké doonoon ku yaatu selloon lool teyoon lool waaye itam woyofoon lool bu ma jiitoo di leen geesu rek bu ma leen séenu taxaw nag leen. bu ma leen séenu it di taxaw nag leen rek. moom seen seen gisuma leen mu dëpp daje yéen. bu ma geesoo gisuma leen it dinaa dëpp daje daje ak dama leen jël topp yéen. kon kon bu ma dajee ma jël leen damay dëpp. da bu damay topp bu ngeen dëppee damay wàññi ko ko topp ci yéen rek. waaye duñ tàggoo. waaye duñ tàggoo mukk. mu defaat lu am solo ci jumaa ji tabax université islamique. li liggéey bu magam ja Cheikh Abdou Lahad tàmbali woon ci ay daaraam ndongo yi daan fa nekk di fa liggéey jaamu yàlla jàng alxuraan sëriñ Saliou Mbacké ku fonkoon ndaw ñi la daan leen jàngal àdduna ni mu war a doxee wala ni mu war a tëddee sëriñ Saliou Mbacké kàddu yu am solo yi mu daan wax bokk na ci jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëriñ Touba daan def ci mag ñi yamul foofu moom sëriñ Saliou Mbàkke foo ko mësaane dégg mu yëkkati ay kàddu moo doon kàddu yu rafet yu sell yu jëriñ askan wi tey juboole doomu aadama yi moo tax wolof dafa wax ni wolof dafa wax ne mbaam Euh, maanaam fot fot tàggaliwul mbaam ak nopp ya waaye nee na loolu wax ju yàqu la. sëriñ bi sëriñ bi wax na loolu la. fat fat jamuy def. tàggu nopp yi taxul. bëgg a tàggoo ko noppam taxul. leneen ci leneen ci nopp yi te dëkku ca. leneen ca nopp yi te dëkku ca. looloo ko tax di la. waaw moo tax muy wax lu ci jëm.

ci kaw. li ñuy ji gi mu ko jiital. ngeen topp ma. ngeen topp ma. Serigne Saliou Mbacké milliardaire bi daawul fësal boppam ci calque di savant bi ay ne waxam ne woon lool bis bi kenn du ko fàtte ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre atum muy bis bu tiisoon lool metti lool ci yoonu murit ak umma islamique bi yépp ñu ñàkkoon ku mag a mag a mag muy sëriñ Saliou Mbacké yal na yàlla yokk leexam te taas ñu ci barkeem amiin